Nous sommes ici aujourd'hui pour la signature d'une convention entre le Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis et l'établissement privé du Sénégal dans le cadre d'une formation en audiovisuel euh, par rapport à la jeunesse saint-louisienne. Donc euh, le Conseil communal de la jeunesse comme euh, toujours par rapport à ces activités, euh, d'accompagner la jeunesse saint Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour signer cette convention-là en partenariat avec du Sénégal pour pouvoir permettre à la jeunesse saint d'abord euh, de, pouvoir bénéficier d'une formation en audiovisuel. Par rapport à l'emploi de, de, la jeunesse, le Conseil communal de la jeunesse met en priorité d'abord ses activités pour l'employabilité de, la jeune, euh, de la jeunesse indonésienne. Sur ce, euh, nous recherchons des partenaires pour que cette jeunesse-là, d'abord, euh, avoir des formations de bonne qualité sur, sur, tous les domaines. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes là pour cette convention en audiovisuel pour permettre au moins aux jeunes, après ces six mois de formation, de pouvoir bénéficier de ces diplômes qui sera remis par euh, Forut Sénégal et leur accompagner pour avoir aussi des stages un peu partout euh, euh, dans la région comme, comme, comme au niveau du, du, pays et même les accompagner pour leur euh, euh pour leur octroyer même des projets pour qu'ils puissent s'en bénéficier pour avoir euh, pour préparer leurs avenirs de demain. École B, c'est une école, de, une école de formation, école de formation en audiovisuel, communication, là. le centre est Saint-Louis. Mais sous nos siège à Dakar, communication, la def, audiovisuel et cinéma. Fofu, dañuy def cinéma en même temps. Fi commencé guñ euh, avec euh, l'aide de Forut, ben avec l'aide de Nous Sims, ben ONG espagnole que nous remercions au passage suñu partenaire moo ñu permettre ñu ubbi ñaari centre récemment à Saint-Louis ak Ziguinchor alors centre bi fii Saint-Louis centre yu Saint-Louis ak yu Ziguinchor yi audiovisuel communication la ñuy def y a les modules am ay modules comme Illustrator Premiere Pro euh, Photoshop euh, montage vidéo prise de vue prise de son yooyu lañ fi am modules à Saint-Louis et à Ziguinchor aussi xale bi bu jàngee fii ba pare bu defee formation six mois hmm. ba pare mun na dañu am benn unité de production léegi mun na bu fekkee am na projet mun na ñëw unité de équipe de production bi accompagner ko mu réaliser projet convention bi damay remercier balaa ma ciy wax damay remercier monsieur Kane Diallo parce que bi ñu ñëwee saint ba léegi mun naa ni moom mooy suñu premier partenaire vraiment mi ñuy chaque fois daf ñuy nemmeeku ba pare gis nañu aussi li tax ñu gën a am fit ànd ak moom mooy gis nañu liggéey bi muy def Saint-Louis parce que mi ngi aider jeunes yi chaque fois mi ngi aider jeunes yi pour ñu insérer wu am ay formation aussi moo tax aussi bi mu gisee école bi chaque fois bàyyiwuñu day ñëw di ñu nemmeeku di ñu wan ay piste parce que xale yi dañuy bëgg def formation bi mais moyen bi lañ dul am dañ naan dafa cher man chaque fois damay jot ay ay appel mais dañ may dañ may ni carrément formation bëgg nañ ko def mais dañu amul moyen donc après si la ma monsieur Kane Diallo proposé ñu liggéey ensemble mu léegi ñu wa euh, pour ñu wàññi tarif yi loolooy tax ñu tey ji ñu signé benn convention boo xam ni euh, dañuy liggéey ak moom durée bi un an la mhm. euh, convention bi nous avons fait def convention L'inscription euh, au lieu de 60 000 xale bi 35 000 les fay mensualité au lieu de 40 000 xale bi 25 000 Les donc xale bu bëgg profité de jeunes la formation formation très kiiwul il suffit juste de lire pour nga mën ko def donc c'est pas une formation boo difficile donc si ko bëgg def rek mën na rapprocher wu auprès du conseil communal euh, avec monsieur Kandiallo nga xam besoin daf lay jox lettre de recommandation moom ngay andi fii bu ko defee ñu mën la wàññil au lieu de 60 000 inscriptions 35 000 nga fay ngay au lieu de 40 000 mensualités aussi 25 000 ngay fay ñi ngi aussi ñi ngi ciy profité di woo aussi autorités locales bu fekkee mën nañ ñu mën nañ ci jàpp aussi en octroyant des bourses aux aux jeunes vraiment surtout ça parce que c'est une formation d'avenir xale yi bëgg nañ ko donc ñu ngi profité di woowaale autorités locales yépp ñu ñëw jàpp si euh, du ma jeexal nag te remercier wu ma di remercier di encourager aussi équipe Forut Sénégal yépp Euh, l'équipe à Dakar et à Ziguinchor maa ngi koy jaarale ci suñu directeur monsieur Diatta Gilbert